asalaamaaleykum ee, maa ngi leen di nuyu ee, di leen sant di wax ni ee, gasoil bi yokku yokku gasoil bi état mooy yokk ah dañuy ñaan nag su fekkee mën naa wàññi mu wàññi ndax mu toll wàññi wàññi wàññi gaz wàññi gaz waal bi moom ci askan wi yëpp la baax su fekkee ne wàññi wàññi mënu la amit ah ki war a ñaan moom day ñaan rek suñu ko mayee mu xam ne may nañ ko buñ ko mayul it moom ñaan rek la war lay féetewoo su ko defee ah ñu koy ñaan lu ci mën a wàññi rek mu wàññi ko eh, ndax askan wi man ci gis seen bopp loolu mooy li nga xamante ni mooy ndax xam nga gaz waal moom mooy mooy ndey lépp moo yor transport moo yor lépp bu gasoil yokkoo lu bari day daal di yokku su ko defee su fekkee ne wàññi mën naa am mu wàññil ñu daal mooy li ñu bëgg état ndax état ñun ñëpp mooy moo ñu yilif kon léegi ñu ngi koy ñaan daal mu wàññil ñu loolu daal mooy lu suñu bëgg-bëgg